dàqul jàmm nee nañu waa Benno Bokk Yaakaar ñetti milliards ak genn wàll 3 milliards 500 millions la ñuy wut ngir demee ko ci élection locale yi bil yéenekaay bi bit de guerre la ko journal bi tuddee mu di koppar yu takku ngir mën a gagné élection locale yi ñu jëm yéenekaay bi tegal ñu ci ne mbooleem ku dib tête liste ci biir Benno Bokk Yaakaar da jot sa wàll ci nar wi koppar yooyee coalition bi wara a jàppale tête de liste ngir ñu campagne ci mi ngi ci diggante juróom-benn million jàpp fukki million ci ay cotisation ci seen biir ñoom responsable yi Benno Bokk jële xaalis ba cotisation yeeg nañu ko tërale moo di weer wu nekk président dana cotiser benn million président institution yi ci réew mi ku ci nekk ci délégué généraux yi cotisé deux cent mille ministre conseil yi ak ñi nga xam ne membre la ñu ci bureau bu assemblée nationale wala ci haut conseil collectivité territoriale mbaa ci conseil économique social ak environnemental ba ci secrétaire généraux yu agent yi ku ci nekk ci ñoom ñu laaj la cotisation bu toll ci ñaar fukki junni député yeek membre yu haut conseil collectivité territoriale yeek conseil économique social ak environnemental ambassadeur itinérant nga xam ne samedi campagne Tribune nee nañu ci jëm mu nar a doon fukki fan ak ñeent yoo xam ne yéenekaay bi nee nañu ko yóbbu séentu ak cooxe ci doxin administration réew mi ndax fonctionnaire yu bari engagé nañu ci local muy ci Ndakaaru di ci biir réew mi te joote ji Tribune nee nañu du loole rek ndax ko yóbbu séentuuti dëkk bu xatati ndax i embouteillage yooyu li ko nar a jur moo di ay karawaan ak meeting yu dul jeex ñuy def ci réew mi réew mi quotidien dañuy wax ne samedi ji di ñëw bu minuy jotee ci la ñu war a tàmbali campagne bi waaye ñu bari ci askan wi seenu fi Bokk Yaakaar ca mairie bu Ndakaaru di Abdoulaye meeting d'ouverture am bi mu war a def ci stade municipal bu Parcelles Assainies ñoo nga ciy séntu gan gu mag mu di première dame bu Sénégal di Marème Sall yéenekaay bi nañu keroog ba muy gisee ak ay responsable yu APR ca Fatick fa la leen waxee ne ñi taxawal ay liste parallèle ci élection locale yi nañu xaar ay sanction ci li ñu def lu defu di waxul lu ay di njàmbat njiital parti Pastef di Ousmane Sonko ak wax waxi monnaie locale yi mu doon wax ngir waa Casamance ba tax ñu koy ŋawta ŋawtee fu nekk ak nu nekk ci réew mi lise ko nee nañu ay mbokkam di waa yeewi askan wi ñoo ngi koy tubayul ak di ko jëlal défense ña ca conférence des leaders bu yeewi askan leeral nañu keroog li tax ba Ousmane Sonko wax lu ni mel lu mel ne am ci société bii di poste mësee su gis ñu gis coow li ci xët mu xamal ne syndicaliste yi ca kër gii di poste delloo nañu buum ca boy boy ba ñoo nga waat ca defante ba ne démb ci seen conférence de presse ba fa lañ waxee ne la am ca poste jéggi na dayo wel ci ay tool Abdoulaye Bibi Baldé mi jiite poste moo ko yées yéenekaay bi nañu syndicaliste yi ca poste wéetatuñu ci seen xeex bi ndax waa FRAPP France dégage waa mouvement Y en a marre ak waa CUSEMS authentique wàll si nañu ci xeex bi société beneen mu di Suez gi fi indi seen o Mignane Diouf mi ngi xarab ab liggéeyam ci le quotidien Mignane Diouf nee na mi ngir teggil askanaw Sénégal seenub coono waaye dafay ñëw ngir wut si fi mu am yi am ci xët mu njëkk l'observateur bokk na ci li ñu doon àtte keroog ca tribunalum Dakar benn waay bu ñu naan Abdourahmane Doy di ab chauffeur femme bi ko embauché woon ngir mu ko doon dawalal ndaw soosee la Abdourahmane takk def ko ñaareel aaw ba ne du ko dégg ñu nekk cee jàppante ba Abdourahmane Doy dóor ko ba gaañ ko ba yëf yu far teere ji tribunal Samona Marseille Alfé